asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki Afrique noo ngi leen di nuyu mbokki réew mi noo ngi leen di nuyu mbokkum jullit mbokkum taalibe di kenn ci sénégalais yi ko am xelam gàtt ca mu am yéene ju rëy ci réew mi moo fas yéene yëkkati ay kàddoom ngir mbas mii dugg ci àdduna bi ba agsi Afrique ba agsi ci sunu réew mii di Sénégal ñoo ngi ñaan yàlla mu jeexal ko te génne ko réew mi génne ko Afrique génne ko ci àdduna bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquranul karim bokk yi wolof nee na xoddi ko ba lakk daataa ñëw Ahmadou Jong te nga jóg jagal ngir wax li nga gëm buur yàlla fay la aw yiw ndem gor nga tey jullit di doomi réew mi xanaa amoo xalaat ci wopp ji xew bopp sàggan xam la muy jur gàcceeg yaraanga ku ne war na ko daw ay teen nu moytu coronavirus bi wopp la nag ju rey te gaaw ci wàlle lekk ak ñam ak ngelaw li man na caa aw te ku mu dal loram ya man na laa lor ay baqataa xetu gimiñ gën ak raw nga wàllu koy junni mu rëy cay téeméer ku def la koy sabab warees na koo caw ku gëm yàlla ak yoneen bi gëm bis penc boo ko defee ëllëg mu yàq saw yiw màggal yi ak gàmm yi nañ ko wàññi ngénte yi ak sarax yi man na caa law lamb yi ak kursu yi tànn béer yi daara école stade te moytu xew déplacé wu sandarma police yi ak douane yi nañ tëj frontières yi te xool ñi ciy aw su ma sañoon docteur yi waa presse bi xamal nu yoon wuy jàppandal ku koy daw service d'hygiène nañ dolliwaat seen doole seen lim ba néew na jumtukaay ya daan daw imaam yi ak sëriñ si nañ ci waare yee ndaw ñi ak jigéen ñi réew mi xëy raw lii ku ko weddi mbaa mu ko daa dof te ku ko sàggane wareesu koo naw saa kaddu yii nag maa ko wax ngir yàlla ak Moustapha ak di ca sàkku aw yiw comme naqaree comme neex taxul ma wax ko lu ma nag kuy weddi mbaa ku may jëw nan jógandoo te ànd xeex ba roy ko te xot di koo gën bàyyi day gi bam law nan wàññi dox beeg wax ji yokk cet gi te maa sa ñaan yàlla virus bi mu law yàlla na ko yàlla génne dun bi bépp tam gaaw ba mel ne daay gu waame xëy taw mbàkke bawal benn fan ci weeru mars 2020 Ahmadou Jongo Baye ma àq jërë ngeen ngeen jëf jërë ngeen jëf